gën koo bàyyi xel ci mboolem taxawaay yi xam naa commission finance buñ buñ jëlee kàddu léegi li ci bari dinañ ko mën a leeral may sant bu baax itam daara ji nga xam ne moom lañ fekk si muy Nuurul Maaydi bu Ensar di siyaare sëñ Mutla mi nga xam ne li ren moo ne ci bopp mbooloo mi di siyaare itam mboolem ancien membre yi nga xam ni jaaroon nañ ci daara ji te yore liggéey ba mu àgg fii may sàkku itam ci mboole mbokk taalibe yi Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu gën koo ñaanal mu gën fee yàgg ndax dañoo am lu tuumuraanke ci jamono mooy kilifa goo xam ni saa boo ko xoolee mënoo xam ci moom lu mu la gën a bëgg lu dul yàlla yàlla rek ngay natt sa diggante ak moom xam ne moo la ko gën a bëgg loolu nag lu jafe la muy koo xam ni benn bëgg la am benn jubluwaay la am te mooy Sëñ Tuubaa loolu nag dafa am dafa am nit yàlla yi koo xam ni dañuy jël exemple ci moom lu bari ñu bari sax xamuñu turam waaye bu ñuy wax rek dañ naan Majnuunu Layla mooy dofu laylaa bi moom ñoom na lañ ko tuddee woon dafa am benn waay bu newoon ci barab nekk fa ak benn soxna moo soxna si ñu bokk di sàmm ci biir sàmm googu ñuy sàmm ñoom ñaar ñu bëggante ci bëggante ku tar waa ji mënta xëy te gisul soxna si soxna si itam mënta xëy te gisul waa ji am na sax bis mu mu seen soxna si romb nit ñi ñuy julli mu jaar ci seen kanam daw ci ginnaaw Soxna te yëgut ne am na ñuy julli ci wetam maam bëgg ko bëgg soy sori bi mu ko bëggee takk itam ay way wayjur Soxna si bañ ngir ñoom ñaar seeni seeni cosaan dañoo jote woon keroog bi Soxna si faatoo dafa ma dafa ni bi ngeen ma ko bi muy dund ma ñaan leen ko ngeen bañ tey nag faatu na kenn mënta dox sama digganteeg ma takk ko saa bu xëyee day tëdd ci bàmmeel saa bu guddee day fanaan ci bàmmeel bi ba fajar xëy wuti lum dunde bu guddee noonu ba faatu fekk ji ko keroog bi mu rombee étape bi ma ci gën a ñor sax mooy keroog bi mu rombee ñiy julli te bàyyiwu leen xel ngir ndaw si mu gis bi mu leen rombee ñooñ bi ñu sëlmee ci julli gi dañ koo dab ne ko xanaa bi ngay romb gisoo ñu ñuy julli nga seen ñu ñuy julli tax nga waroon a bàyyi li ngay def ñëw julli ji mu daal ne yéen bi ngeen di julli bàyyi ngeen ma xel ñu ne ko ah bàyyi nañ la xel mu leen dellu leen ngeen julli te ngeen xam ne man de ka gisoon tax na bàyyiwu ma leen xel booy nat bëgg sëñ Muntaxa foofu nga koy teg sëñ Tuubaa teg bët bu bu weesoo amut leneen loo koy natt ba mën ko cee gis moom sëñ bi rek la gis te ñaanal gi itam ndax muy am solo saa su ne mooy waxtu wu ne tolluwaayu lislaam yi nga xam ni at at yi fi mu toll ak wér gi fi mu toll sax mayatu mayatu ko yu bari nga xam ni diine teggil na ko waaye saa su ne mi ngi koy tegoo barki démb rek bi ñu demee Touba sëñ Cheikh Abdou Latif mi ngi nisal nañu koor gii ñu génn rek bu ñu xëyee dañuy daj lu métti ci mu bañ a woor waaye du tee danaan day woor maam li sëñ Touba daa def nga xam ni am na ci diggante bi tukki wi am na ci diggante bi boo xam ne tawat gi tawat na ci tawat gu métti métti waaye waxtu julli bu jotee danaan bëreet jub julli mel ni ko dara jotut bu julli gi daanoo mu delluwaat ci melo ba ñu ko xamee woon moom diiru koor gi noonu la neew nga xam bu dog jotee nee na ngir mu yëkkati sax kaasu ndox mën a dog koor gi kàttan gi du fa ne waaye bëgg yàlla ak bëgg sëñ Tuubaa ak taxawaay bi mu am tax na du ko sàggane benn yoon loolu nag sëñ bi nan ko gën a ñaanal mu yàgg fii te ànd ak wér te ñu gën a sàmmaat liggéey bi ndax am na ñoo xam ne juróomi at ci ginnaaw wala fukki at ci ginnaaw bu ñu ñëwaatoon fi ñu bàyyi woon Majmahun Nurayni bu ñu ñëwaat danañ xam ne doxin wi am na jéego yu ci yokk loolu nag du taxaw saa su ne kanam la jëm waaye loolu yëpp dañ ciy dimbali mooy ñu ànd di benn te te nangoo bëggante ndax sëñ Blaat dani ñaar ñu ànd ngir yàlla te mënuñoo déggoo am na ku ci waxut dëkk kon saa boo ànd ak nit te sëñ rekk tax te yéen ñaar am am giita ngaas bu dox seen diggante xoolaat leen seen bopp am na ko ci waxut dëgg ànd gi bu wéree bëggante faaw mu am te bëggante fu mu am yéenante moo fay am kon nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax maanaam doxin wi kenn ku nekk ñun liggéey sëñ dëgg dëgg dëgg ci sa jëmm lay tàmbalee mooy saa su ne ngay càmbar sa xol saa su ne ngay càmbar sa pas-pas saa su ne ngay xool man ba xam ci li ma ne laa ne loolu nag ci fànn yépp lay dugg nit ki waxtu wu ne dafa war a xool ba xam moom am na ko mu bañ ba xam lan moo tax mu bañ kooku bu fekkee àddina képp a tax mu defaraat xolam xam ne des na diggam ak sëñ bi loolu càmbar googu dafa war a am ba ci suñu tolluwaay njàng mi ku nekk liise ku nekk université ndax léeg dañuy différencier am na ñoo xam dañuy jàng ngir passé waaye xam-xam ba war a am ca barab ba ñuy toll maam duñ ko yóbbaale ci classe ba ciy topp ñoom nañ passé rek nga xam da nga naan man naa am examen wala naa am moyenne jàll boo demee ba ba sa fin cycle am na yu bari yoo xam ne bu ñu la ko doon bu ko doon toppaat yow newul ci yow ndax waxtu wi ñu ciy toll jàngoo ngir ngir xam-xam bi waaye dangaa ngaa jàng ngir passé loolu autocritique boobu saa su ne na koy def noo koy def ci suñ bopp jataay bi mun naa gudd moo nañ koo xëyee yendoo ko fanaanoo ko ba suba ñu yeewee ko waaye diggante boobu coono gu métti mën na cee dugg boo xam ni dina am diggante boo xam ak bàyyee ndiku dana ci am te loolu kenn xamut fu ñu mën a yóbbu bu mu ko defee mu gàtt nag def ko ci njàngum xasida mu wér buñ ñaanee jox ko sëñ Tuubaa won ko ginnaaw su boobaa la ñu waroon def def nañ ko kon maa ngi ciy soññiwaat bu baax a baax a baax lépp nag ziar bi ñu jëm bokk na ci li tax may wax daanañu ziyaare naka jekk man fan yi maa ngi toppaat maa ngi doon toppaat wax yi nga xam ne sëñ Muntaxa bi ñu ko njëkkee ziar ci 2018 xaw ma 2017 ba tey mosuñoo daje te waxuñu ne nangeen ngeen farlu ci jubluwaay bi di genn te gën a wér bëgg di genn te gën a wér ànd gi itam di benn te gën a wér maam ñetti baat yi mosuñoo dajee ziar te waxuñu ko loolu nag lim bëgg moom mooy moom lim ne ñun ñu ne ci ndax foofu la njëriñ li ne te mooy sëñ Tuubaa kon nag sëñ bi moom amul maa la mag li am mooy gën a farlu gën gi farlu itam yàqu dara ci maa la mag gi maanaam nit ki danga koy jox cër bi nga ko war a jox waaye bu mu la dox mukk sa diggante ak farlu kon nañ ci góor góorgóorluwaat bu baax a baax a baax gën a xamaat fu ñu war a teg suñu tànk waaye ziar bi itam ñu waaj ñu waaj ko laaj naa ne ba xam nañ daan ziaree noonu la ñuy noonu la ñuy dikkaay suñ seen ne bu leen ci soppi dara li ngeen daan def mooy li sëñ bi daan xemmeem ci yéen daane loolu bu ngeen ko yokkut daane bu ngeen demoon bay fomm na doon fomm goo xam ne seen wàccaay moo des waaye bu leen ko somm te wéer ko ci sëñ bi ndax xam na waxtu wu ne bu waxtu ngeen ñëw xam na ko teg ko ci itam nam leen daan gasandoo bu leen sikki ne noonu la leen gasandoo kon nag lépp rek ci ñun la def ci ñun la des bu baax a baax a baax a baax sëñ Baye nag dafa waxoon ni ab sëriñ akub traitant ñoo yam ak commerçant da koy jox sa yëf ngir séentu ci mbiram dara sëñ taxaa dafa duy ci sëñ Tuubaa ba ba ba ba ba duy ci loo xam ni maanaam kawe na njort fi ne nit attewuñ ko ci jamonoom di ko jiitu maam kenn ku ci ne ci sa jamono lañ lay atte maanaam ni dalee sëñ Modou Moussa ba ci sëñ Saliou ñun fekkee wuñ ko mënuñu ñu cee atte waaye nag jamononte nañu ko sëñ Sidi Maxtaar jamononte nañu ko sëñ Muntaxaa te moom lañ bokkal jamono fi ne dañoo war a gëm ne li ñuy wut ci sëñ Tubaa ci moom lañ ko war a amee dañoo war a gëm ne bu ñu ko noppee gis te yóbbaale ci moom ngërëm li ñuy wut ci sëñ Tubaa moo ngi a dund sax mooy am ci ñun kon daara ji benn jubluwaay la am yàgg naa ko wax benn amuñu ñaar amuñu ñett mooy wut ngërëmal sëñ Tuubaa loolu kun ci xas baax na kun ci naw baax na kun ci fekk si baax na kun ci won ginnaaw baax na waaye jubluwaay yi moom du soppeeku te boobu ba tey itam jig nañu dig gi mooy saa su ne ànd gi mi ngi gën a dëggu te loolu mooy loolu mooy loolu mooy li wér kon nan góorgóorluwaat bu baax a baax a baax a baax a baax càmbaraat pas-pas yi ci jëf yi am murit jëfam li sëñ bi naan li sëñ Muntaxa naan kenn ku ci ne càmbaral sa diggante ak sëñ Tuubaa bu ci sa xel dalee nga gën a góorgóorlu bu ci sa xel dalu itam nga xam ni far gën a farluwaat war na la waaye amul kenn ci ñun koo xam ni mën ngaa jëf lu rëy bëtu sëñ tubaa loolu amut waaye sax ci jëf moo war ngir sante sëñ bi loolu nañ ci góorgóorlu ci bépp barab bu ne maam ab murit fu mu di benn wala mu fay junni moo war a yem ci ñoom daa war a nekk murit te yam ci kon nañ ci góorgóorluwaat bu baax a baax a baax a baax maanaam bañ a fooyee suñ bañ a fo bañ a fooyee suñ jamono bañ ko fooyee bu baax a baax te ànd ngir ànd ci dëgg kenn ku ci ne caaxaan yu nga ne xam nga ko ca dara téyewul ci lu dul sa bakkan te foofu nag ci la xeex bi nekk mooy nit bu nit waxee ba dugal la ci dara dara neex maam saa su ne dangaa war a moom sa bopp moom moome ni koo xam ni kenn du la jëmee ci lu dul yàlla ak ku mën a doon ak lu mu la jege-jege loolu dafa war a wér ci ñun loolu mooy tax ñu mën a sàmm suñu taalibe ndax ab taalibe dañ ko war a denc fu yi foo xam ne lees koy sàmmee day bari mooy tàmbali ci wax ji ma wax ne nit ki dafa war moom boppam moom boppam da bokk nga mën sa bopp te dañoo nekk ci wàccaay woowu maam ki nga xam ne daa nekk université wala mu nekk lycée sëñ Tuubaa dañ la bu bu bu wërsëg di sa yitte maam yi nit ñi xewal bu mu di sa yitte kii doon jiitu réew mi tey nee na bi muy nekk université bi mu amee téléphone ni ko nit ñi di sonalee dañuy damaa mujj xam ne téléphone damay sonalo ma far ko jaay te sëgg ci li ma war a nekk loolu lu am solo la nit da am objectif boo xam ni fan fan laa bëgg a yegg ci taalibe fan laa bëgg a yegg ci sama àddina te ba noppi. bañ cee dugal koo xam ne dana la wax wax joo xam ne ànd àndandoo boo xam ni dana la wax wax joo xam ne dana la yokkatloo ci loolu nga nekk kon loolu na ko bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax a baax maam ziar bi addiye la amut leneen ñu bari mun nañoo wax ni addiye ji dong lañ ci laaj addiye ji dong nga yitte ji kese kon nan ci nan ci nan ci góorgóorlu suñu kàttan maanaam lu ñu ci mën naam nan ko ci góorgóorlu kenn ku ne si ñun li nga gën a fonk maanaam boo ko mënoon jaay sax jaay ko ngir sëñ Tuubaa natt ji sa pas-pas maanaam def ko ndax foofu la mbir mi ne sëñ bi daa am lu ko sëñ Tuubaa di liggéey loo te loolu mu koy liggéey loo faw dana yegg sëñ laat bi mu fi newee dafa dafa am wax ju mu wax dafa wax sëñ Modou Mamou Niang ne ko sëñ Touba dafa maa liggéeyloo loo xam ne dafa maa leer te diggante bi mu ma koy liggéeyloo gàtt moo tax sañu ma ci noppaliku lu lu yegg danaa tàmbali leneen ba keroog li mu bëgg mu am ko te loolu pas-pas boobu mu ci amoon boo xoolee boobu ba tey yoonu murit ci mbébét sëñ Abdou Lahad la ñuy wéy lu li mu tàmbali woon rek lañuy ñuy kon nag loolu mooy ak murit ab murit du wàcc bu ko sax xalaat maanaam xëy sol mbubb moo xam ni dana tax nga jàpp ne say raq dañoo war a topp sa ginnaaw loolu du murit sëñ Saliou Touré mii nee na sëñ Saliou Mbacke bi mu yónnee ci moom ca got Baye Mor Sall la yónnee ne ko demal nga wax ko ne ko am na ngërëmal yàlla am na ngërëmal yenent bi am na ngërëmal sëñ Touba am na sama ngërëm nee na bis bi mu ko waxee loolu bis boobu la tàmbalee liggéey sëñ Touba kon loolu Cheikh Ibra Fall doy nañ ci misaal dani sëñ bi keroog bi mu koy wàccee dani ko wax ma loo gën a bëgg mun ko saa yu ma xëyee di la gën a bëgg mooy amul xemmewul dara lu sëñ bi ñun foofu nan fa ne maanaam bu nu mës a jëf ba jàpp ne am na kenn koo xam ne war nañoo wo warmaal wala war nañoo am na cër bu ñu yeeyoo ci biir sëñ bi yoon bi ba mu daj kenn ci am cër mooy sëñ Tuubaa moo koy joxe itam te lim la jox boo ko gisee mu yam ci loolu kon saa su na ni na ni gën a féddaliwaat laxasaay yi maanaam gën a gën a góorgóorluwaat diggante yi xat na metti na am na si ñoo xam ne ay njaboot lañu yor waaye lool du lay de maanaam alxuraan moo nu waxoon dañu seen njaboot yi ak seenu alal fitna lañ ci yéen mooy loo xam ni dana dox sa digganteek Ibrahim li tax ñu digal ko ne ko rayal sa doom mooy suñu borom dafa yër xol bi gis ne mu ngi tàmbalee am cofeel ci doom ji maanaam place xol bi doom jaa ngi koy bëgg a nangu te yàllaa fa war ne xol moom yàllaa ko moom maam jigéen moomu ko alal moomu ko doom moomu ko soxna moomu ko Ibrahima yër suñu borom xam loolu xam ne lii la gën a bëgg mun ko rayal loolu te bi mu ko koy wax ci gént la ko waxee mu gëm ko doom ji gëm ko ñoom ñaa ñu nangu ko ba li ciy xew xew ci jamono jii ñu tool nag ci ñi fi des kenn lañ fi dégg mu ni sëñ Tubaa fekk na ma toog ci barab mu jox ma loxo nee na bi ma joxee loxo ma naan alhamdulilahi alhamdulilah ba yàgg ma sama xel dem ci mbaxane ma ma sol bi ma koy simmi la sëñ bi woon ma ginnaaw dem yoonam loolu kenn lañ ci dese mooy Cheikh Mouhamadul Muntaxa kooku lañ war a jàkkaar loolu sëñ bi loolu loolu loolu doy nit kilifaam la am kilifaam dafa dëggu ci moom maanaam buy jëmee ci moom dafa am pas-pas bu mu war a gis ci moom ndax gannaaw gannaaw li ñuy gis ñun dafa am leneen loo xam ñoom ñoo koy gis dañoo wax ni Seydina Omar dafa taxaw ci minbar di xutba gis saariya nekk ca Yemen moom fi mu taxaw ak ka muy gis fa mu toll te boobu moom mi ngi xutba mi ngi jàkkaarloo nit ñi nii may wax yéen lay wax ak nit ñi ci ak ajuma waaye jamono yi muy wax ak ñoom mel na ne am na geneen jëmm joo xam ne mi ngi gis geneen seneesu beneen ndaw moo xam ne mi ngi jaar foo xam ne am na ñu ko bëgg a mu taxaw fi mu taxaw yuuxu ko ne ko saariya moytul moytul doj wi boobu am na gis na ñi laa ci ginnaaw doj saariya moom fa mu toll dégg na baat buy wax ak moom naan ko moytul doj wi bi mu sol mënee julli julli ñi ñëw ci moom ne ko jamono yi ngay def nangam maanaam jaaxal nañ ndax ki ngay waxal nekkul ci jataay bi mu daal ne man maa ngi jàpp ne ni ma koy gisee ngeen koy gisee loolu nag buñ ko jombalee sunu waa ji ci tubaa sëñ Touba la wuutu sëñ Touba du du du kii du du du gaa yi sëñ tubaa moo fàggu gaa yi moom kooku la wuutu. li ñuy wut li ñuy ci moom àddina ak alaaxira mën nañ koo amee ci moom benn jërëjëfam mooy jërëjëfu sëñ Tuubaa di jërëjëfu yeneen bi di jërëjëfu yàlla amuñu wuute Cheikh di Maxtaar da daan wax naan sëñ Muntaxaa fi mu toll ci sëñ Tuubaa man dama ko ñeewantal dama koy ñeewantal saa su ne ndax saa su ko xëyee yitte ji day gën a yokk bëgg gi day gën a yokk te loolu du ko caaxaanee kon ñun itam dañ ci góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ziar bi ziar bu ñu mus a bii ñu jëm moo koy dàq maam ci fànd yépp nag kon nan góor góorgóorlu te sori détails yi ndax yu bari détail la da nga gis koo xam ni day somb liggéey Sëñ am ku ne ci wetam li ci wax wax joo xam ne da ko yukkatloo loolu buñ ci dugg saa su ne mbir mi na gën a wér ci ñun ndax pas wi xol yi li ci war a ne mooy Sëñ Tuubaa loolu maanaam nan ko nan ko bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax kenn ko ne ci ñun daa yar sa xol lan moo ci ne baxa am na lu gën a rëy ci yow Sëñ Tuubaa ndax bariwaa na koo xam ne fi ne yitte ji ko ñàkk connexion di def ñàkk Sëñ Tuubaa defu ko loolu am na koo xam ne bu xëyoon amul connexion boo ko rombee xam ne kii tey amul connexion ndax ni muy triste maanaam jëmmi connexion rek laa wax nga xam ne loolu du lu du lu palpable nii loo xam nit ki da ciy teg bëtam maanaam jigéen képp bu ko mere woon waxuma waxuma ku mu takk de koo xam ne day da koy ngoro mu xëy mere ko bis boobu moom kooku dootuñu ko xàmmee fu mu toll dana wax ni sama digg sama digg diw mere na ma te yow mere boobu wàññiwu la dara xañu la dara au contraire waxtu woowu sax nga war a gën a tàmbalee moom sa bopp léegi ba xam sëñ Tuubaa toll nañu foofu loolu loolu jëf yi moo koy wane jëf yi jëf yi alal alal di ñu yor ba xam yéen yéene nañ ko ko kon loolu nañ ci góorgóorluwaat bu baax a baax a baax a baax am jataay bi ñu bari mënoon naa leen tudd jaar ci seen tur ay damay tënk rek xam ñu jéem a xam ci liñ dëgmal mooy lan sëñ bi bi mu fii ne daawul fo mosu koo def nit mosut a fo ci kanam sëñ sëñ Abdou Rahmane mu daaru mu siwi dani li nitu yàlla yi naan man mosuma mooy yàlla sëñ Tuubaa def na lu ko gën a yéeme mooy fu ñuy mooyee yàlla sax musuma faa jaar maa musta musta doon musta sax traversé xelam maa ak fo musta sax traversé mosu koo sax xam nit jëw na mu dégg ko daa dañuy dil xëm nit tudd nit foo xam ne waru ko faa tudd mu ne dil nit ci suuf xëm bi mu xëyee bi mu bi mu delluwee ci sagoom dañuy suuf si yëpp nan ko nan ko ton ni tuuri ko fa maam feneen kon yooyu yëpp li muy wane rek mooy suñu waa ji fi mu toll maam nañu bañ dugg ci ay futili te jéema a wéral suñuy pas-pas te jéem a bëggante maam te yàlla tax kon maa ngi ciy bu baax a baax di tënk foofu kàddu yi di siyaare mbokk taalibe yëpp gis naa fi ñoo xam ne gëj naa leen gis loolu waaye lépp rek jëmmi bis bi ak jëmmi daara ji ñu ñëw maam moo ni toll kon maa ngi siyaare ñëpp di tënk foofu kàddu yi sëñ Bara